aywa moomu noonu salaamaaleykum askan bi nuyu nañ leen ziar nañ leen bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte kontaan toogaat tey sa plateau bi encore ak Rive TV sa ëttu ñu commencé ko si bisimilahi rahmaani rahim àggalee ko alhamdulilah rabil alamin du julli nag euh, si sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ne jërëjëf Cheikh na Cheikh Sadbou jërëjëf Cheikh na Cheikh bu baax si yéen waaye nag euh, tey damaa dalal tey ñaar tey samay sama côté càmm bi ma xoolee Amina laa fiy gis di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax Amina. maa ngi nuyu ku nekk ak sa tur sant. waa defee maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax. delloo bu baax a baax macha allah sama invité. ma góor sama xarit démb wàccee na plateau bi moom macha allah nuyu naa la ziar. waaw maa lay fay di la ziar. nuyu ñëpp di ñuy seetaan à travers euh, Grand TV nuyu soxna si. comme ginnaaw moom nuyu xam naa ne. <laughs> yàpp nañ ko. <laughs> waaw maa ngi koy ziar di la dalal ci jàmm. Ah. ba démb dama ñëw ci góor ñi ah, def émission bu doy waar waaye tey damay ñëw si jigéen ñi tey nag si jigéen sama gan Amina démb sama gan dafa toog démb fii mu ne maanaam xale jigéen ñoo nangootul sëy dañoo gëm matériel gëmuñu seen bopp parce que ndax la dañoo gëm xaalis ci wax Tafa moo wax loolu ne <laughs> dëgg la benn côté na xale jigéen ñi bëgg nañ sëy mm-hmm. bëgg nañu sëy mais franchement sens bi la ñu am sens bi dañu amul des fois nag nga dajeeg góor boo xamante ne moom si commencement bi dina la gëmloo loo xamante ne sax aloor que daray leer ne lii boo duggee doo ko fa fekk mais d'une part amul mm-hmm. parce que déjà góor lu feeñ si ngoro rek dañuy naan dina feeñ si sëy mm-hmm, des ñëw dund ak yow loo xamante ne macha mais du la wax ne nii mm-hmm. am leneen loo xamante ne da koy xaw a njort ne lii la bëgg bu defee nag looloo tax na ñu ne xale yu jigéen ñi bëgguñu sëy chaque fois nag lii mooy tax problème bi di am mais am na xale jigéen yoo xam te ne moom vraiment bëgg nañu sëy am na ñoo xam te ne nag matériel la ñuy wër mm-hmm. mais comme ni mu nekkee si kaawu xale yu góor yi si xale yu jigéen ñi noonu la nekkee si côté góor ndax déjà di nga gis góor boo xamante ne di la ñëw bëgg te rek a mm-hmm. ne la lii laa bëgg te yàlla rek a tax mm-hmm. am koo xamante ne nag dina am loo xamante ne da koy imposer boppam ne la bëgg nii laa bëgg su la d'accord ok su fekkee d'accord est-ce que Amina tey jigéen yi baax yi ñi bëgg sëy ñoo nga bëgg sëy ba tey waaye am na ñi nga xamante ne bëgguñu sëy Amina ñoom taxawaal moo leen neex mbaraan moo leen neex parce que tamit am na ñi nga xamante ne tey boo leen takkee tey dugal leen si sëy dañ leen sonal parce que tàmmuñu sëy dañoo tàmmu taxawaal wala boo leen bu ñu sëyee si biir kër gi dañ fi def benn une semaine wala un mois ñu dem parce que ñu toog ñoom taxawaal lañu xam te rawatina à chaque fois rek maanaam xale jigéen ñi dañ leen xas xastu loolu te dañuy bàyyi góor ñi loolu laa bëgg tey nga indil ma si tuuti góor loolu laa bëgg tey nga ma ne la lu feeñ si ngoro feeñ si sëy jigéen soo ko bëggee te yàlla tax ak noo munti mel ak noo munti am ne ko lii laa am sooy bu fekkee dala siy bëgg si loolu mu si loolu mu bàyyi la mais am na nag jigéen yoo xamante ne moom dañ ne contrat la ñuy bu mettee moom vraiment moom duñ ko fa sax xaar dañuy a génn mais xam boo toogee kii ne la ah man de sëy bi ma sëy dugg na fii génn fii lii laa bëgg ba ma doon am copain lu nekk maa ngi ko doon am léegi nag tey dugg naa ci sëy day nekk barrage li ma mm. doon am si sama copain mënu ma ko am léegi si sama néegu sëy mm. boo gëmul yàlla tuuti rek da ngay ne xaaral ma génn ah, wax loo mm. xalaat si mu wax li ma doon wax rek ah, am de xanaa dafa dellu ci li ma doon wax rek waaw ginaaw bu ma ko dégloo bu pare ñu nga am na solo mais xam nga dafa am benn affaire boo xam ne dafa ma xaw a jaaxal xam nga gars yi dañ naan bëgg nañ sëy mm-hmm. jigéen yéen parce que am na looy euh, da ngay gis jigéen boo xamante ne dañ naan suñ ma mayul temps du ma sëy mhm. xam nga dèjà commerce commencé na mhm. waxaale bi waxaale bi <laughs> léegi dema man su ma demee ba nii dama la ko bëgg nga ne ma boo ma mayee temps laay seeg yow mhm. tegal nga ma marchandise ñu commencé waxaale dëgg su fekkee nit ki moom dem ak nag mbëggeelam mën na def ba def lu mu mënu dem ak nag mbëggeelam mën na def ba def lu mu mënu dañ ma ko jaay en boobu mën na la ko takkaale est que yéen a ngi sóoraay loolu beneen bi Tak dafa metti metti bo xam ne imagine li ngeen créer yeen ñaata solo ngeen di solo ci bu ngeen xew 17 jasner kat yi di tegg ngeen di dugg ko gene di solo ku góor ki defon xaay jop sol ben yereem rek su ba ngon ci ko xam da nga wara sey ci ki may ñew sama entreprise la sama entreprise la téma ko dimbale ñu takk ma ci farata yalla sunu su mohammed dem jàkk def ñeent ak tarance wo quelques personnes ñu tak ñu dem kër ga dajale sunu xaalis dundu ci dundu bu neex lutax yeen fet fet bu reuy suba ngeen xey baña ndekki mo leen gëna deug la waye tafa ah. dafa am wajuri nga xamantani da nga naan ma tafa li ma wax da nga ma ci wax lu leer da li ma wax deug la man ci loolu la man tay xama degul ma rek mm-hmm. tay dama bëgg waxtaan bi mm-hmm. mu neex mm-hmm. ñu bañ jall rek tafa dafa contre jigéen ñi mënuma bañ jigeen ni man jigeen ma jur wala dafa contre dama bëgg tay waxtaan bi mu leer suñuy waxtaan bala ñoo jalle jall ñu waxtaan ci lool limay wax amna wala amul man dama bëgg limay wax su dee amul rek bul ma may dara parce que ñaan lu soxlo dama koy jël lima wax lepp ci deug lima koy luma wax lo xamantene ando ci dagg ma wala faatu jël ñu débat ci li may wax ni amna wala amul ami lo xalat ci lolu ok d'une part ah. pour mu am pour ma nangul la ne d'une part carrément mm-hmm. lolu ci góor bi la njëkkee na la njëkkee ci góor parce que yow ya koy imposer mm-hmm. tey bu la leeree na tey ki ngay doxaan tey bëgg nga ko tam mu leer na la tey jabar la tey sa alal la tey mm-hmm. jabar nga koy def je pense que yéen ñaar mun ngeen déggoo mm-hmm. mun ngeen déggoo daal lay demee ndax jigéen mm-hmm. ak lu mu capable capable d'une part góor boo taxawee wax rek am na sutura bi nga xamante ne du weer boppam rek am na sutura bi nga xamante ne loolu nag li nga wax noonu dama la koy nangul de mais si njëlbal la yow mii ku góor ki yow yaa mën a encouragé loolu am nga mën a def loolu bañ a am ndax boo koy doxaan boo ko gëmlooyee ne ko lii la rek defe ah, bu lay bëgg ci loolu da lay bëgg ci loolu boo ko indi loolu dootul un million teg ko oto jox ko lépp mm. non day sëy ba sëy fu dara nekk boo ko joxul sax dina sëy ne mm-hmm. bu dee góor yi sax mun naa ne waajuri góor yi amuñu problème parce que ni ne ñëpp tak tracé rek moom ñuy farata bi du mm-hmm. dëgg waaye jigéen yi en général ñoom ñooy bëgg may bu njëkk wargal di laaj ay millions yu bëri mbëri maanaam yi sagates rek yaay yi nga xamante dañuy taxaw ne sama doom dañ koy may 3 millions wala 4 millions parce que tey gis nañ ci tey lu bëri nga gis tey tey day jigéen tey may ko 3 millions oto pari lu or loolu yëpp léegi nag jigéen bu ko gis maanaam day bëgg ni ñu defar moromam moom ñu defal ko ko te pourtant doole yemul te nekkul ñëpp am. Mhm. dafa loolu tamit loo ci xalaat. waaw ah, loolu mooy li ma doon léegi rek nga doole yemul. Mhm. ñëpp am amuñu. il faut xale yu jigéen ñi di ko di ko di ko sëyaale. Mhm. wala ñu ciy ngoro gis nga yow soxna si li nga wax sànq ci affaire euh, lépp ci base bi la gis nga des góor. mën na fen sax te fen bi gënalu parce que ki may gënal xam na ni suma ma ko fenol duma ko am mhm. suma ko fenol duma am luma bëgg suma ko fenul duma ko tak man gis na ñu fi tak ñoo xam dañ leen ki leen tak da leen fen ba tak leen te pourtant de ak leen bëgg nak mhm. mais xam na ni ki suma ko fenul rëcc ko lu mu ko wax mu ne waaw donte amuko lu tax ku jigen gi mënul ñëw ni ko man dama la bëgg rek te yalla tax yërëm ma bëgg ma donal julit respecté ma respecté samay wajur lu ci dess ñu wut yalla may lu tax jigen du ko wax goor mhm. dama bëgg nangam dama bëgg nangam dama bëgg nangam Euh, euh, takk bi ñu ne la temps lañ la laaj mm. boo ñëwee takkale sa benn somme di nga gis góor gu dajale ba sonn ñëw joxe sax may mu njëkk ci ngoon gi ñu yónnee di ko laaj nag li nga jox doy li nga joxe doyul li may wax nii yéen a ma ko gën a xam mais nag attention des fois góor ñëw ne jigéen jigéen ñëw ne góor dama bëgg sëy yow rek te yàlla waaw loo ma jox baax na waaw mais nag bu demee ba si biir est-ce que ku jigéen ki tamit dina nangu loolu wala waajur tamit xam nga xam nga nga ne ko xam nga ne loo sëyal ma loo ma jox baax na mm. bu dee da nga koy wax gëm ko sëy boobu mooy dàq sax sëy bu ñu takkee ay millions yéen dégg ngeen fi ci télé ba taay diw may nañ ko 10 millions diw may nañ ko 5 millions sëy ba dem fenn xam nga ban sëyee neex gis nga néegu sëy bu naan la dafa xat mm-hmm. c'est parce que bu ñu bëggantewul lay xat mm-hmm. mais nga néegu sëy bu tollee ni pantare ngeen bëggante néeg bee gën a yaatu euh, néegu cinquante la gis nga nit nañuy sëy te yàlla tax di bëggante te yàlla tax gis nga da jàpp gis nga ki ngay sëyal mm-hmm. da nga jàpp ne sa sang la loolu yalla ko def ngay seyel sa aljana mi ci suufu tankam hmm nga gor parce que rasulaay ak a neex a nax góor bébé la mais ki koy nax mhm. dafa am nim koy naxé do yor ay wewu lancet diko ci nax mën ta nek gor so am ci mom lo neex dang koy neexal nga di nga gis gor am jabaram mhm. yakamte wacc ligay dem fa ndax liko jabar di mhm. di nga gis gor ligay wacc du ñew kërëm taxawaalu ndax ragal dem mhm. ndax segg gi mu fay fekk mhm. il faut ngeen xam ne góor sang la mhm. jox ko cër jox ko li mu moom respecté ko sëy du defante mbëggeel du gis nga euh, baal ma mbëggeel du du guerre mbëggeel ay sentiment la léegi mbëggeel comme guerre wala tibb gréwaay comprendre nga mbëggeel du guerre mbëggeel ay sentiment la bu yàlla demee ba def na góor ak jigéen ñuy bëggante mm-hmm. xoolal xam na ne loolu ay yëg-yëg la ci xol mm-hmm. yaa ngi dégg moo tax la mbëggeel du guerre ay sentiment la mm-hmm. mbëggeel du da nga nekk chantier di daaj mbëggeel du da nga da nga da nga nekk ci garage mécanicien yi di seere mbëggeel lépp dafay dal wax bi day dal sa jëkkër woo ko ngeen waxtaan wax bi nooy neex mu wuti jox la jëkkër kenn du ko imposé gis nañ fi lu ne la jigéen ñi def boo soxloo lan moo tax naan sa jëkkër boo ko boo soxloo dara bàyyil ba digg guddi Digu-gudi, bo may ma yàggal mm. diggu guddi boo fa tuddee rek santage am na fa mm-hmm. lan mooy xew diggu guddi ba tax ngeen di bàyyi ba diggu guddi ngeen war a nekk diggu guddi <laughs> neex seen diggante ñu ne boo ko soxloo dara bàyyil ba diggu guddi billaay man boo soxloo dara xaar diggu guddi doo am dara jaral na ma ma ñàkk waaw dama góor yi nga xamante ne ñoom dañoo feebul parce que heure boobu seen jabar ñuy xaar ba a sëy nit ki te yàlla tax bëgg ko yàlla tax am say njaboot ci barke parce que jigéen rek moo mën a toog si biir néegu sëyam ne fii dinaa fi jur wàlliw dinaa fi jur imam dinaa fi jur xub doom ba nga xamante day tekki ëllëg jigéen rek moo ko mën a waat waaye si kaw loolu da ngay nangoo sëy nangoo muñ nangoo tarbiwu tamit sa borom kër surtout loolu tamit nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax xale jigéen tamit nañu góorgóorlu bu baax a baax ñuy muñal xale yi xale tamit du ma ci neex rek mooy li may wax li may wax yéen a ngi koy ma ci neex rek moy man limay wax yeb batay mu len ko dindi yéen a ngi nangu. man damay nangu parce que xamul tax do la ñuy dund legi xam nga yow yaa ngi wax legi nga ne nga ne jigen ni dafa am goor ñu sama jaba dama ko bëgg ba melni ko ragal lu ma laaj rek ma jox ko guddi suñu wété ma ngi dootuma ñëmé ragalu ko parce que la ñom dañ ko mayma dañ ko jëlé faible mm-hmm. di ci santage mm-hmm. te yaangi santage lo loo billaay sa bopp nga suba mooy mujj sa njaboot. waaw parce que ñu ne ku ñu sa que yéen sang la est-ce que xamu xanaa xamu leen <laughs> jëkkër sang la. jëkkër dañ koy tarbiyu. jëkkër sang la jigéen xoolal gis nga ñun. xam la moo tax ñun ñu yaru mais vrai que gars yi dañ naan mais des na à cent pour cent yàlla daf ñoo sutural ñu am yaayu mag. Mhm. yaayu mag moo ñu dimbale de. Mhm. parce que suñu yaay ay meer lañ. Mhm. am na ñoo xam ne sa gaañu nañ. dañ lay yar ci yar bi jaar yoon. mais yaayu xale yi léegi yëpp kenn yaratul seen doom parce que jànk yi ñooy am doom léegi. léegi xale yi ñooy am doom. Mhm. te talluñu leen xam lañ nekk. Mhm. ay wuti ginaar naa ko ji njeer ndax guddi geeg dem sama sëriñ ñoom yooyu rek leen intéressé dem sama sëriñ bi na ma na ma ko yeewal lu ma ko laaj mu jox ko. talluñu sax xale yi yooyu ñoom xoolal seen joge xam nga joge la na xaay bi génn rek. moo tax li may wax démb laay dellu tey gis nga góor ñi amuñu luñ leen wax mm. góor ñëpp dee nañ demal armeel la caa yëpp a fa wékku <laughs> demal ci kër yi musóor yee fa nekk di fayeku waaw si pension yi ay jàmbaar lañ dañoo daw ba dee barki yenn yàlla moo xam ne gis dañ bàyyi man dama seetlu benn affaire yéen a ngi commencé tàngal sama yaram sax may ma a ngi tàngal sama yaram <laughs> dama seetlu benn affaire débat boo mënta seetaan ak foo ko mënta seetaanee hmm. xale jigéen bi ñu toogee rek góor ñi góor ñi góor ñi góor ñi ay waay yërëm leen ñu bu tànn nu mu ma si góor ñi noonu la amee si jigéen ñi dafa am important dafa parce que lii il faut moo ko il faut ñu bàyyi góor yi yéen góor leen rek la la sant mhm. toogal sa wetu yaay defaru rek mhm. ma liggéey ñëw jël la mhm. góor bu la takkee indi la ci këram bu daan jox yaayam cent mille da koy wàññi yaay ëppale léegi yaayam gën te bu yaayam ko juróon yaa ngi dégg boo feebaree mu dem wuti góor day dem sax ba jaay ay tubayam pour jabaram dem faju wala affaire bu leen jël benn góor bu bon gis nga nee naa natt règle boo gis am na exception góor ñi ni ñu boneen jigéen ñi nga gisee ñu bon noonu la amee uh, góor ñu bon mais bu ñu jël benn euh, général généraliser affaire yi bu ñu ko def billahi góor ñi ay jàmbaar lañ lan motax keur go jamal armel ici repose Modou momodou Moustapha dañ koy lim sans doo ko gis ici repose ben fat mais dañu daw ba dee il faut ngeen dawal tuuti yërmande dafa góor ñi dañoo doy war de dafa ah ci nan góor doy war nañu trop li nga wax mom ben côté seede na ko ne deug la amna waaw mais ben côté tamit goor ñi doy war nañu tafa comme nan góor moo mën a takk jigéen mhm. ñëpp yow la bëgg mhm. yow mi sa jëm bop sax da ngay ne carrément sama jëkke daf ma bëgg mhm. mais mo la mën a ci ben jour do to bëgg ci dara sa àdduna looy def wóor naa gis nga soo gëmatul yàlla tuuti tuuti hmm. da ngay fàtte sax ne yow yàlla am na waaye xam nga après leneen beneen dund ngay dundaat xam nga ami nangu naa boobu metti na trop léegi nag après gis nga kaa boobu tey nga takk nit ki nga xamante ni dafa ñëw rek pour naan juste dama bëgg sëy ak yow te yàlla rek a tax hmm. Hmm. gisuma fi séentuwuma fi dara lu ñëw ñu bokk ko ma xam ne lii sama wërsëg la nañ ko bokk ma ak yow dina ñëw rek te def ko jaamu si yàlla am si lu am si njaboot ko détruire mu bàyyi àdduna dootul si gis nga loolu pour mu duggaat ci sëy sax day xaw a am problème day dem dundaat beneen dund bu mu do bi nga xam ne daanu ko woon sax dund temps yi mu nekkoo woon si jeunesse am boo demee marché boo demee marché metti nga baal ma soo demee marché gis nga loolu sax ñàkk gëm yàlla la metti na mais ñàkk gëm yàlla la xamul tax ma ne gëm la yow bu ngay dem marché di nduggi nga am sa benn client boo xam ne saa yoo ñëwee moo lay jaay jën nga ñëw tey mu jaare jën yu nëb dafay tax nga bàyyi jën dama la naan fu ñuq seeti ku baax yàlla ni ko yàlla maa ngi lay ñaan da ngay nga ne yàlla maa la lay ñaan yàlla nga ma boole ku baax ki ñëw waaw déglu ma kii ñëw xoolal kuy ñëw mais su ñëw mm. ah rek nga jàppee ko ne mm-hmm. kii la ma yàlla booleel mm. parce que yàlla da nga koy gëm ba pare woolu ko ñun gars yi dañ dañoo gëm yàlla mais wóolu wuñ ko boo demee ba nekk góor gi trompé na ma rek mm. fuur naa góor yaa ngi def erreur parce que dafa ne lii dangay nangu ne lii yàlla moo ko teg mm-hmm. man mii di wax ak yow tey mën naa la may wax benn affaire man takk naa jabar boo xam ne génn nañ relation bi moo gën a yàgg sëy bi ma daj ci lu nekk mais basta tey sama goro bi ma daan sonal moom si boppam sama xarit la doomam mi ngi sëy feneen fàtte naa lool nekk ci leneen dama xam ne nattu moo yàlla waroon teg la ah, comprendre te lool bu ma la ci doon nettali mën na mën na mën na jël émission mais loolu da nga koy fàtte jéggale lépp tugg mm. ci leen bul ne ku góor ki dafa ma yàq te naa leen xamal benn affaire de gis nga bon dañ ne góor ak jigéen a koy def mm. mais bon su bëree rek jigéen la barki alxuraan bu jigéen ñëpp téewoon seen bopp bon doo am yéen a yéen a yor yéen a yor urus bi ngalam bi yéen a ko yor mais da ngeen koy maye xamu leen loolu man looloo ma jaaxal li ngeen yor moo tax góor gu ne di xëy fajar di liggéey mm-hmm. mais da ngeen koo fàtte mm-hmm. il faut jigéen ñi xam ne ñoom euh, tafa doguma la waaye bu fàttali jigéen mooy ëmb mooy wasin mooy nàmpal mooy boot mooy def lépp c'est normal yaa ngi mooy def lépp waaye saa da ngay gis góor dina takk jigéen jigéen bu sëy si kër gi man li mooy xam naa ko bu baax mm-hmm. ñu koy métital fay bi sonal ko torop ku jigéen ki même bu la taajalee lekk sax doo ko nangoo lekk bu la mayee ndox sax doo ko bëgg ndax tellement day sonn surtout si kër gi du soo sax yëre yu baax waaye nag euh, bu la góor bàyyee sànni la yow faraatal sa bopp defaraat sa bopp toppatoo sa bopp tegaat sa bopp si marché bi góor bu baax dina ñëw teral la ak góor dina ñëw teral la man à chaque fois rek damay conseillé sama mbokku jigéen ñi góor bu la munta takk ak ku la munta yor xoolal góor bi nga xamante ne am na diine am na lislaam am na taalibe am na yërmande góor ba nga xamante ne bu la takkee du la saaga du la toroxal parce que góor yooyu la ñuy wut ndax ëllëg say doom bu ñu juddoo nga mun leen yar mun leen teg si yoonu siraatal mustaqiim waaye tey loolu dafa jafe Amina parce que tey da gis jeune bu takk xale bu jigéen xew ba dañuy solu ñeent bu juróom tey bu la takkee tey dugal la si biir kër gi bu xëyee dépasse bu la jox sax day nekk problème wala lan mhm. bu lay tëddee sax day nekk problème surtout tamit jeunes yi tamit nañ bàyyi xel ci loolu jigéen ñi tamit dañuy yërëm xale yu góor yi ba ku ñëw bëgg a jabar tamit même day bëgg ñëw waaye du yor poosam du ko àttan bu dee góor a góor rek amul problème parce que mën nañ yombal lépp ku si ne Moussa defee tey boo ñëwoon tey di ñaan si doomam tey day laaj cinquante mille boo ko amul mën a jox ma trente mille mooy alal bi mooy lépp mhm. kon nag papa di mel ni moom euh, damay ne yombatul wala bëreetul foofu tamit ñiy bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax jigéen tamit bu ñu bëggee góor tamit bëgg a sëy kese kese kese te yàlla tax nañuy yërëm góor ñi ndax jigéen ñi mën a sëy parce que léegi kenn sëyatul wala man célibataire bu congoo ba yàqu mun ma fexe ba am jëkkër ah dafa dàq bu bëri bi ah. maa ngi maa ngi nii taxaw sama maa ngi nii jongoo ba ma fexe ba maa ngi maa ngi nii ah, ah, loo maa maa ngi nii sama may bu njëkk bu ñangoo suba ma jox ko papaam cinquante mille man nee naa ma jox ma jox <laughs> ma cinquante mille bëriwul léegi nag ngeen yërëm xale yu góor yi parce que xale yu góor yi ñooy papa ñooy dem liggéey indi si kër gi ñooy daw ngeen njaboot waaye tey boo leen bëggee tey jël xale yu bëgg xew bu riche bëgg xew ba nga xamante ne da ngay bëgg di solo ñu ne ay amina xewam bi lu mu sañse waaye est ce que boo sëyee si biir kër gi sa jëkkër dina am dépasse mu la jox dina am tey boo amee doom tey sa doom tey bu feebaree est ce que dina ko mun a faj loolu yëpp suuf tamit ngeen bàyyi si xel du si xalaat bu baax a baax ñu jéem a xool tamit si yaay yi ñu sëyee tamit ñu jéem ko sëyee tamit jéem a roy tamit si yaay yi que yaay yi naa laama dañoo sëy dañoo sëy sutura moo amatul ci sëy am sutura am lépp waaye xale jigéen nangatuñu sëy ah ndax ay millions la ñuy laajte sànq wax nga lu am importance sànq nee nga nit ki su lay bëgg na la bëgg te yàlla tax mm. mu takk la ak noo munti am sax mm. loolu baax mm. na la bëgg rek te yàlla tax loolu bëgg mais des fois nag nga tasante góor boo xamante soxor na. Mm. dina la bëgg du la yéene dara dara dara dara dara dara dara. Mm-hmm. mais dina la topp dugal la. Mm-hmm. des fois fa xaw a doy waar na am na nag mm. jigéen yi nga xamante ne nag moom. comme li ñuy wax ne comme sànq imposé 3 millions man dama jàpp ne peut-être kuy imposé ay 3 millions. am loolu jënd na taxi di daw dépense. xaaral ma xew <laughs> ah. su yemul. su jotu quoi sa mm-hmm. sa doole su jotul sa ginnaaw sa yaay mm-hmm. gis nga ni muy dundee situation mm-hmm. defe naa benn 3 millions bi ngay yàq tey nga ne alal bi lii laa siy def dinaa sañse ba ñëpp xam ne sama xew sol naa si fukki yëre ak teg nga dem def ko sa benn moo gën a mu jur leneen moo ëpp sax téeméer yoon ko sañse yi siy def ah, mais benn côté tamit góor ñëw dund loolu loo xamante ne na la xam nga góor ñu bëri tiital waaw mun na ñëw ak sabu bi ok lii la dem leb benn banque <laughs> benn banque ñëw dama lay <laughs> damay takk yow tamit nga ne mm-hmm. ok amul benn problème yaakaar ne que mooy continuer jaba ji tey bu ñëwee dugg sa kër tey muy la mm-hmm. mm-hmm. soo ñu naxee rek ñoo raw mais nag pour ñu nax leen ndax boobu mooy problème non ñun ñoo raw end nag mooy xama xama xaarama Mm-hmm. Mm-hmm. non xam nga xam nga xam nga tey dafa am benn dëgg da ngay nga yéen ñii yéen ñëpp dem ngeen ci ay xew yoo xamante ni yéen yéen man au moins sax ñun lu ñuy dem xew ñun bu demee jàkk ja en dootuñu dootuñu mais li wax nii yéen a ma gën a xam yéen ñi ñëpp dem ci ay xew yoo xamante ne da ngay gis koo xam ne li ko takkee man na deux millions mm-hmm. gel bi solo na ba ñëpp xëy naan la mu sant sa xew ba la mu sant sa xew ba te jëkkër ji néeg bu mu ko yóbbu def la waxuma la fu ñuy fanaan de fu mu ko yóbbu def leen dimb amul am na ñoo xam ne takkee nañ leen ay millions baatal leen fii ñëpp di ñëw xew dem ngeen ci xewee ba tey mm-hmm. ba tey ñu ngi fanaan seen mm-hmm. ah am na ñoo lu ne defal nañ leen ko ci xew ba tey amuñu néeg wala ñoo xam ne seen néeg éponge lañ fa lal mm-hmm. xaalis boobu ñu doon xewee loolu puukare la woo waa mbedd bi ngeen amu fi ngeen tëdd mais affaire yooyu man man dama xam la mooma jaaxal affaire yooyu moom a yéem te ba ba pare léegi xam nga leen ci toppaat mhm. booy jigéen ñi léegi dafa mel ni ñoom dañuy laaj dañuy laaj yenn affaire yi mais des fois day mel dañuy dof <laughs> man pour man wéru leen de woo nit ñi kaay leen comme li naan waa comme li mayoo ma daaneel comme li gars yi naan waa koñ bi kaay leen see kaay leen xaw <laughs> seetaan yéen ñii la ñu war a teg ci mbedd bi seetaan leen ndax yéen nekk ngeen wala déet <laughs> xam nga lu tax may ma ma yeggal li may dafa am important naa la bàyyi nga def xam nga man may ma rek bu ma leen commencé laal rek bu ñu ma dama leen di wax man doo leen ci góor yi maa leen di dimbale sax ndax xam naa ci góor ñaay fay <laughs> mais yéen bu ñu naan waaye koñ bi kaay leen xool <laughs> du lu rafet lañ leen war a wax kaay leen xool yéen war a exposé ci mbedd bi <laughs> ni leen waa koñ bi kaay leen xool parce que yow ngay laaj ay million xewee ko woo waa koñ yi lekk naan ngay solo ko sumi mm. nga pare yow sa néeg amul lal sa néeg amul télé bu sutura amul woon ma tuddal la ay tour yo xamne ne nañ len ay millions amuñu néeg buñu tedd am na yoo xam ne de imagine sa jëkkër di jël jabaram di dem kër copain pour pour nekk fofu jabar lool est ce que c' normal légui nak sutura bobu mo amatul ci sey mhm. ba pare xalé jigeen yi benen côté li len di dal ci sey xamul tax muy bëre lepp ñom la mhm. nga tak sa jëkkër nga tak sa ah, ngeen balo nga tak sa jabar ko mhm. ma juum <laughs> nga tak sa jabar <laughs> uh-huh. yaa deg uh-huh. ñu ne yalla bu defé goudi def bëccëg sutura tax mhm. xamna naa ne imaam may deg mhm. yalla bu defé bëccëg def gudi sutura tax ñu defal leen nek mhm. am daret ñetti yon nga nan ko kacc kacc bis bu nan ko kacc kacc yeen ñaar rek a ne ci biir <laughs> té loolu loolu ngeen nekké ci biir sey yu bëre légui après ci biti lay faral way tafa lutax fa dafé dafe may mama tékalé li may wax dafa am importance après mën naa noppi cinq minutes ngeen débat ci ba lu ma leen di suñu rek <laughs> li ngeen nekké ci biir yëpp uh-huh. après ci biti lay fanaan léegi da ngay dem ba nga xamante ne yàgg sa jëkkër sa jëkkër bu dee jàmbaar wala du jàmbaar mm-hmm. sa morom yi xam nañ ko waaw da mu yéen gaaw a la ngay la ko jawa ji <laughs> mm-hmm. benn beneen ba da ngay dem sa sa yaay war la war a yab jabaram war a yab doomam ni ko boo demee sëy ba na nga def nii na nga respecté jëkkër na nga def nangam na nga nag léegi seen yaay dafa mel ni sëy lal kase la yaay ay beeco la yebee doomam ay jinjeer takkal lii woddol lii boo demee solo lii ay fer yooyu rek la ñuy jox seen doom nga war a woo léegi yow sa doom yow lan lan lay defee kaw lal ba rek la fa nekkee yow doo woo sa doom nga ne ko sa jëkkër sang la mhm. waxtu julli del julli su wàccee del wax ak moom nànk sooy wax ak moom sa baat bu mu jëm kaw mhm. yaa ngi dégg lu mu bëgg dee ko def même boo amee lu la naqari bàyyil ba xaaju guddi nga nga yee ne ko nijaay baal ma lii de nangam ak naam ngeen waxtaane ko waaye sa doom ñëw yendu si yow ba ngoon nga jël ay fer ay nuisette ay moom yu ñuy yu ñuy géree guddi rek jël ay mais loolu amul sens sëy du kaw lal kase comprendre nga mais léegi yéen comme dangeen doon bëggoon li ngeen wax dama leen di laaj. luy nit ak jëkkëram nekk ci biir néeg mm. ñuy sëy seen biir néeg ngeen pare génn li ñuy nekkee seen jëkkër ak jabar yëpp génn si biti bii si guddi sama euh, cristal laa jën rek sama nuyu def laa wékk fii xaar ko mu ñëw yooyu rek ngeen di waxtaane lu tax moo tax boo amee doom bu judd di nettali euh. ñaan sama doom bi daa mën a Hmm? <laughs> waaw dafa li nga wax dama koy dëggal parce que xam nga léegi sëy amatul sutura parce que mag yi mag yi bu ñu doon sëy bu njëkk dafa amul sutura waaye léegi sëy amatul sutura da ngay gis jigéen bi sëy si biir néegam lu mu defante jëkkëram bu génnee si biti wax ko ami wala wax ko hmm. penda ah wala xool sama xarit nday diboo ne ko sama jëkkër ji démb lu ma ko def ah lu ma ko defa démb si guddi waaye dafa gaaw a def lii dafa gaaw a def nii sutura amatul moo tax doom bu fa juddoo doom boobu kon tafaa lu mu wax rek xale bu mënul téye làmmiñam parce que day nettali ah. da ngay gis tamit jigéen du sëy am si ay njaboot parce que kon li mu wax sànq rek da xaalis bu bëri mooy ko jigéen te fekk na yow sax amoo sax lal bu baax wala ñaar néeg yi nga xamante ne boo amee doom say doom dinañ mën a séparé wu ngay fanaan fii yow ngay fanaan fii da ngay gis ne euh, jigéen moo jëkkëram buñ nekkee guddi bi doom bu nelaw de am na benn xale bu ko mu sox papam yow papa mel na naa la torop papa ne ko lu ma def mu ne ko bu ma laal yow papa dama laa mere parce que dama laa gis ngay dóor sama yaay dóor yi métti loolu laa la mere waaw ana sutura foofu ana sutura foofu nag ñun jigéen yi ñiy bàyyi xel yërëm foofu ñiy wàññi maanaam foofu sax ñàkk moyen mën naa am foofu sax ñàkk moyen mën naa parce que moo foofu sax yàlla yàlla mm-hmm. xaar ma waare tuuti quoi mm-hmm. foofu sa yàlla ndeysaan moom mi nga xamante du juum du jaawale foofu sa mm-hmm. yàlla am na lu juum dimbalee parce que xam na ni moyen bokkul dafa ne boo yoree ay doom ngeen nekk si benn néeg fi ngay nekk ak sa jabar di say say doom war ñu fa nekk mhm. mais bu yàlla defee nee na benn néeg nga am mhm. yaa dégg bàyyil ba ñu nelaw ngeen nekk ci li ngeen nekk waaye léegi sëy bi dangay xale jigéen leen di yóoxoog ay ay ba xale yëpp yeewu looloo ko yàq dañoo waane mën ngeen sëy ci tranquillité mais fa la ñu di jonge jonge la naan di ku jur sëy ba jur ay doom loo yóoxooti ba yee xale yëpp nag yàq te loolu ñoo yàq xale yi waaw noonu la góor ah. nag moom moom bu demee bay xalaat ne carrément su ma takkee mhm. sëy bi du yàgg jaral na waaye nag Amina foog ngeen yërëm xale jigéen ñi ngeen wàññi affaire maanaam yi ngeen di laajte foog ngeen wàññi am nga jëkkër yaa bu jëkkër célibataire la amoo jëkkër xam nga yow déglu ma yow ma dal la may ko jigéen nga macha allah boo sëyul ba tey boo waatee sa diggante yàlla dàq ngaay góor <laughs> yàlla man jekk mi sëyu ma yàllaa la tiim boo waatee sa diggante ak yàlla dàq nga ay góor dama man du ma fen gis nga nag eh, kaana eh, wax la eh, yéen ménopause dafa gaaw ménopause léegi wàcc na eh ménopause wàcc na ba 40 ans léegi ñun sé ñun déglu ma dañoo takk jabar boy déglu ma la ben affaire mais leen benn affaire takku ñu jabar affaire eh déglu waaw déglu ma la ñeen da ngeen yaakaar waa léegi ma la ñen ben affaire yeen da ngeen yaakaar ñun dañu tak jabar pour nek ci neeg bi di guer rek ñun dañu bëgg am ay doom yeen yeen def ngeen goor ñop màgget da ngay am ben ben jabar am ak mom ben doomu planning 5 ans 5 ans yoy muy planning ngeen baal ma ci terme bu dé dafa planning bopam 5 ans ne bugul am dom mais na ma ma nelaw mais ni muy planning non imagine 5 ans ma nek ci mom te du jur dom man est ce que man sama lima waron am dom yëpp sanni wumako ci àll bi suba bu dindee planning am man duma ma am dom parce que lima waron amé dom 5 ans yëpp maa koy sanni rek bo demee ba planning bu bëggoo am dom bàyyi ma nelaw ma tam takki ku bëgg am dom non non mais loolu ñoo yàq relation déedéet intérêt mooy lan defar naa ami may ma foofu ma mais yéen gis na jigéen buy sëy yow sa kër papa am na lekk am na naan yaa ngi tëdd fu nooy yaa ngi sol yëre lu tax ñuy muur jigéen guddi muy dem sëy lu tax ñu koy muur guddi muy sëy mu dem sëy ah boo dem sëy waaw kay léegi nag yow boo demee sëy yow ñaan nga fa yàlla am si ay njaboot ci barke yokk yokk xetu sëy dina am waaye xale jigéen ñoo bëggatul léegi njaboot da ngay sëy oh. góor am moom benn doom nga fatt sa ñurukaay mën a bu gaaw na. Oh, feebar yi bëri bëggoo jur doom. bëggoo jur ba pare bëgg nekk ci lal bi chaque jour di génn. loolu mënul nekk. bëggoo jur doom kay toogal man maanaam takk bëgg jur di ngeen planique am benn mu dindi planique bëgg a am doom du mën a am doom mu commencé faj yow ku góor gi nag loo liggéey nag du ko investir ci hôpital yeeg ordonnance ak jur boo commencé jur. dem na ci nga waaji lay eh, waaji lay labat eh, lay labat mu eh. mu xam ne jëkkër jaa ngi commencé def yenn yi mu ragal. mu ragal su ma ko juralee. gis nga la ma lay ngeen bàyyi xale yu góor yi may leen jàmm dégg nga wax il est temps ngeen may xale yu góor yi jàmm te dem sëy gis waa ji la man mën naa la xoolal du ma seetkat waa ji lay labat bëgg la nga koy xaarloo nee ko waaw suba mu ñëw yow waaw Amina tey yéen tamit ñun xamante nañ xoolal sacrifice sa bopp mooy lan defal nga sëy chaque jour ngi ñëw sa kër di jaabante di jaabante di jaabante bëgg na la nee ko waaw mu ñëw yow même Amina yow. ana yow kuy ñëw kuy ñëw. non doo doo sax saaxee nag sa Moustapha. yaa ngi waaj yi ñëw. Moustapha ba ñëw Moustapha man bu yàlla moo ko doon. mais nag déglu ma wax leen benn affaire. dafa am loo xam ne il faut ngeen koy naw gis nga yéen yéen yéen yéen a lëbëjee dëkk bi xam nga ngeen lëbëjee dëkk ma rek ku la li may wax yàlla laa ciy seet yéen ñi ku a lëbëjee dëkk bi de gis nga mbaraan yéen ko créé woon dañ koo nangu ci yéen dañ leen jaay doole da nga ko yéen a créé gis yéen ñetti faram menn may man saa ñetti faram la tegle mm. di ci xool kan laay séyal gis nga noon ngay xoolee naan kii la wala kii la wala kii la <laughs> noonu ngay dem bay màgg teew doo ko yëg <laughs> doo ko yëg si tànnal kenn nga ñaan yàlla ni ko ñëwal takk ma ci fat ñett xool ci ki ci gën nga jël ko du woon yoon sax ngay jël ñett mm-hmm. comprend nga parce que ku nekk ni muy ñëwee mm-hmm. comprendre nga jël tànn ci kenn dem sëy moom lu ci des nga teg ko ci loxo yàlla yàlla danga koy wóolu mais tamit doo saax saaxee nag lan mooy saax waaw ñun ñun ñun ñun saax saaxee wuñ suñu bopp ñun ko jox eh déglu ma eh eh eh, eh déglu ma ma eh ñuy jël suñuy million déglu su may wax instant yi li may wax nii ñu baax ñi laay waxal jigéen ñu baax ñi laay waxal ak góor ñu baax ñi ci débat boobu laa ko tënk li may wax nii dama ni ñu ñuy jël suñuy million mm-hmm. di ko def ci yéen di leen takk ngeen ñëw ci kër gi di leen jox dépense bu ngeen feebaree ñu fañ leen xanaa ñun tam dañuy asaaloo suñu bopp waaye loolu tax du ngeen ñu calculer ci course bi ci lañ bokk ñun lu neex ñun la def xew sax nga ñëw xew boo xamante ne maa financé xew bi yëpp def ci bu ngeen ñëwee yéen jigéen di servi sax na jigéen ñi am ba pare <laughs> te bu dul woon góor du ngeen am ñu nangu lépp mais sëy leen ñu te yàlla tax wàññi leen li ngeen di laaj yéen ñëpp ngeen dem sëy dëkk bi neex non yéen kuñ yow kuñ ami ñeent ak trente vingt cinq mille la koo jox vingt cinq mille doo dem sëy jox vingt cinq mille doo dem sëy xam nga lu tax dafa mais tam nañu wax dëgg yow yow yàlla bi cinq mille la ne moo lay takk moo lay mais yow bu la joxul un million doo sëy wala lu mu ki lay takk man leer na ma ma ngay manee wala ma nga ca fa muy liggéey di def ay frais di takk sama boy gis naa koo xamante ni ki ma bëgg ki may takk dama ko bëgg may temps war a mhm. takk ma ko mi ngi dajale rek <laughs> mais loolu dafa métti dafa dafa damay ñëw si benn affaire bu am solo maanaam kon li nga wax sànq si mbaraan bi nga wax xale jigéen am ba ñeent ah. boobu dama siy sawar parce que xam nga dama siy kan nga waaw <laughs> boobu nag moo dafa tamit na bàyyi li waay xale jigéen yi dañoo dañoo ñeme mbaraan nañ ko waxta bi ak ni ma ko sañ wax ah. waaye nekkul ñëpp parce que comme tafaa lu mu wax sànq rek ñii baax ñoo ni baax ba tey mm-hmm. waaye am na xale jigéen ñi nga xamante ne am nañ fit am nañ sañ-sañ dañuy am ñeent maanaam si ñeenti far yooyu dina am kuy jënd sëfa dina am ki nga xamante ne mooy fay location dina am ki nga xamante ne mooy res ndékk bi am ki xamante ne mooy res yeneen ñi sew sawaa ak bagage yooyu ku si nekk rek am nga li ngay gérer yaa ngi dégg te ñeent ñàkk seexlu rek ñàkk seexlu rek ñeenti góor <laughs> ku nekk xetam nga ñëw ñeent yooyu yëpp ngay maraan noonu yaa ngi dégg mënoo si bañ a kenn tamit surtout jigéen tamit ñu xam ñun foofu ñu xam suñuy valeur xam ñun ñooy ñan mhm. ñu xam ne ñun urus lañu or lañ ñu yor dafa cher tamit boobu oh, ëllëg eh, temps nah, ñun jigéen ñi tamit ñu xam ne suñu bopp ñu dañoo seeroon li ngeen yor dafa seeroon mais léegi léegi léegi seeroon yàq ngeen ko de foog nga def naan bilaay walaay dalaay foog nga def naan dëgg la nag ñii baax ñii baax ba tey vraiment am na yu baax am jigéen yu baax waaye nag bul yàkkamti yàkkamti ba dal si li nga war def te toog fee nag dama lay may benn benn dama lay may benn anecdote boo xam ne ci man si jigéen noonu am gis nga góor sama bopp laa koy dëgg la góor na góor fen na ba takk jigéen am li mu am si moom pare sànni ko mu dem yoon. Mhm. Mhm. xam nga mooy ñu bon ni rek mooy ñu bon ni rek xam na ñu baax am na ñu bon. dafa amee si jigéen noonu la amee si góor yi tamit. boobu dafa metti des fois nga gis góor da koy bëgg te yàlla tax bëgg a mhm. génn moom être sérieux man damay gis góor bëgg a génn moom être sérieux mais lan moo tax may commencé découvrir parce que day fen ma nekk projet fen la teg mhm. mhm. su ma neexee ma ànd ak sa fen boobu mais balaa ma si tax dama lay naan dégage mhm. ma dem tenter dem da dem da may ma ma daaneel fii rek lii moom mënu ma ko bañ a dugal amiin suñu ñëwee ne lii da ngay ah. da ngay ah. xam nga dèjà man dinaa ñëw ah. nekk góor mu ne la i kii de ni mu xaaral ma ñëw gëmloo ko yéen parce que su ma ko gëmloo ne ko man aw rek daf may bàyyi ndax dama mm. day xeeb boppam quoi day xeeb boppam mm. léegi nag yow mi na bu fekkee intelligente nga ah. boo duggee sa nga ko ah. ah, su ma sëyeeg moom du ma sa am loolu la ma nga mm-hmm. xam laay wax mm-hmm. fi jamono nekkoon ak fi ngeen ko indi mhm. man bi may nekk xale mhm. di am quinze ans mhm. quinze ans laa lay wax bi may nekk xale di am quinze ans dina reetaan lu nii sax mais c'est très important <laughs> barki yenente bi bu samedi mosaan jot man ak sama ñetti ñeenti commune du ma tudd seen tur imagine loolu jigéen xolo boobu jigéen ba ngay nekk fa mu nekkoon nekk nekk en valeur xoolal <laughs> day samedi xamal la la ñuy def dañuy sol suñu tubéy du ma ko rus a wax sol suñu jiin xamal la la def dañuy wër pàddu waa bu ñu gisee jigéen bu rafet rek kii ne kii sama gel kii sama del ku nekk daw tëyëx ko mu ka daw rek fekk mu taxaw rek nga tëyëx ko wala nga lamb weenam ya, wàcc nga nga dem ñibbi boo xëyee suba di ci enjoy démb boy bi li ma ko def dama ko lamb parce que dafa jafewoon dafa jafewoon silip silip ngeen baal ma ci terme bi foo ko masaan weer ñun ñoo ko doon sàcc silibu jigéen <laughs> si silip bala ndax pour nga gis ko problème la ndaxte léegi léegi buñ fi jël sa léegi buñ fi weer si silib ñu jël ko da ngay tiit da ngaan dañ ma liggéey eh. mais jamono jooju kuñ fi sàcc wóor na ma xale góor yi nga parce que duñ ko gis mais léegi imagine yooyu jafe woon waxuma la lu may silib foo ko romb sax nga koy sànni loo koy doyee ndax léegi li silib tiim dañ koy joxe. <laughs> comme c'est pas possible il faut jigéen ñi jëlaat xam ne ñoom xam seen valeur ngeen jël ko li nga li may wax nii day xaw a comédie ñuy ree mais dafa am importance dafa am jigéen li mu yor mm-hmm. du fowukaay mm-hmm. gis nga bu demoon di nga léegi góor fu mu demee bay den naan am booy bu ma fi parce que am na jigéen yu wër ñooñu mm-hmm. góor daan dem liggéey góor daan dem liggéey yi naan dama bëgg liggéey ba am million pour ta ki ma bëgg nekk ak moom léegi góor imagine góor dem di entraînement di yëkkati ay poids pour am am am am ku ko yor moom hmm. xamante ni gaan wàcc ngeen seen valeur góorgóorlu leen <laughs> hmm, hmm. waaw macha allah vraiment kontaan naa bu baax a baax a baax émission bi am na solo ñu jigéen ñi nañ gën a defaraat suñu toogaay gën a fonk suñu bopp gën a xam ñun ñooy ñan parce que lu ñu yor dafa cher vraiment waxtaan bi am na solo yaatal nañ ko ba mu gën a yaatu parce que lii la doon xaar bi ndax gars yi bu ñu ko seetaanee mun a bég mun a kontaan mun a xam ne tamit li ñu teg si plateau bi am na njëriñ gars yi tamit nañ si mën a njëriñoo tamit bu baax a baax di leen wax na rek vraiment tey kontaan naa si Amina di bég di kontaan tey si invité bi tey vraiment kontaan naa si bu baax sama xol sedd na mhm. waaw di kontaan tamit euh, sama mag sama xarit sama càmmiñ ah solal ma trop nag su koñ bi vraiment tamit di leen baalu àq bu baax di wax naa bu baax baax baax si jàkkaarloo bi tamit euh, macha allah di bég ci yéen di kontaan ci yéen vraiment Amina maa ngi lay bàyyi nga tàggatoo. Mm-hmm. waaw faa Faye kontaan naa trop vraiment kontaan naa si invitation bi. Mm-hmm. neex na trop. Mm-hmm. vraiment Tafa moom daf ñu doon tey sànni xeer waaye gañewul tey <laughs> ñun ñoo gañe ba tey du ñu d'accord. macha allah à 100 waaw maa ngi maa ngi am contentement di dellu si at tamit waaw xëy na yàlla tamit waaw. bu nañ waaw. <laughs> waaw léegi nag moom di ñaan rek yàlla def xéwal ak sutura yokk place bi ba ñëpp yëg waaw di wax comme naan wax rek li ma fi wax lu ne defar rek laa ci jublu bu ma sañoon ñëpp baax bu ma yoroon ruu mbaax ma branché ko ñëpp. macha allah yàlla na yàlla defal sutura waaw. salaam ah macha allah kontaan naa bu baax a baax li ñu ci lépp rek kaf la ak foo gën a waxtaan ak tamit jigéen ñi gën a waxtaan tamit ak xale yu góor tamit ñu bàyyi xel bu baax a baax ñëwuñu pour xas kenn ñëwuñu tamit pour nga ñi kenn wala du wax nit tamit la ko naqari juste dañoo ñëw rek pour waxtaan ak nit yi gën nañu yee tamit xam nga euh, def ciy baax trop yee saay tamit ñu indi benn thème partagé ko gars yi seetaan ko mun si jëriñoo bu baax a baax a baax vraiment di kontaan bu baax tey sama plateau di wax dégg na sama xol sedd na di wax na rek euh, tey moom damay jagleel nuyoo bu tey sama waa koñ hmm? macha allah ku si mel ni maritu sama saruxle bu baax bi macha allah kenn du yow du nuyu tamit sama xarit sama doomu ndey sama lépp xamante ne lu dëgg la ànd nañ ñaar fukki at may mun a muy magi ami vraiment tamit maa ngi koy nuyu baax a baax a baax a baax nee suba nag si ñaareel laa ñëw ñaareel ñoo ay suba aawa yi du ma leen may dara te suba tamit jigéen laay éviter sama plateau di profité rek di wax ne rek lii ma sol ni moom amoon moo fi jaar tey ubbi waaye fisi bi fi jaar que yii moom maa macha allah ku si bëgg rek mën nga ma woo si 615 52 69 ah ma ñawal la jaay la tisi vraiment moo ngi nii daal yanj rafet waaye nag kanam bi nag mën naa fi jaar de maquillage bi mën naa fi jaar waaye nag juste nag euh, di nuyu sama cameraman bu ñaawul bi macha allah yaru na dal ah, na tey na te lu muy def nag moom. mën na ko ay trop te na ko ñoo ngi koy ñaanal tamit jàmm gudd fan wér gu yaram. télé bi tamit ñiy ñaan rek mu doon ay télé yu bëree bari bëri ñëpp di ci kontaan ci biir bopp sama imam bu ñaawul bi nga xam ne tamit kenn du moom macha allah ñu ko koy di ko ziar du nuyu ñëpp di bëggee ñëpp rek di leen wax ba suba incha allah même heure hmm? même tamit télé bi rek Grand Yoff TV ëtt Fatou ci beneen numéro merci <laughs>